comme ni mu manqué sax dafa ëpp lim ngee ngi toll ci 300 000 table banc yoo xamante ne nii école bi manqué nañu ko lii tax yéenekaay bi di laaj ci milliards yi ñuy wax ne dugal nañ ko ci milieu bi ba tax na waa SAES kuréelu enseignant yi na ngi xupp état bu ci seen accord yi nga xam ne nguur gi ba léegi si ni laa la wax respecté ko la tribune yéenekaay ne Amadou Ba kay la war a wax mu respecté askan bi moom en tant premier ministre bëgg a dee prix denrées alimentaires yi yokkul lool dund gi laa la wax cher ba kenn mënu lu ko nettali commerçant yi moom jommi jommet la ñu def fekk jamono jooju njiitu gouvernement bi moom mu ngi ci wàllu politique le regard ne président Ousmane Sonko kay fi mu toll muy lijjanti boppam ndax fi mu toll mu ngi def ay recours ngir mën dugg nag ci élection présidentielle yi ñu jëm yéen bi nag gannaaw recours ba ñu def ca diwaanu Ziguinchor ndekete Ousmane électorale bi waaye bu nu sukkandiku ci maître Diagne mi nga xam ne ci biir yéenekaay bi ne def nañ ay recours pour Ousmane Sonko mi mën a jot ay àqam ak yelleefam Les Échos yéenekaay ne fi mu nii kay Pastef jël nañ seen responsabilité sàkku ci seen i militant bu ñu paraneel kenn nañu toog déglu nag parti bi ndax jamono ji dañoo nekk ci ay recours te ñu ngi xaar na cour de justice mu daal di su noppee nañu soog a seen wàllu parrainage yóbbu nañ ko ca Ziguinchor mu nekk fa gouverneur même ci wàllu police bi sax am na coppite ba ci direction générale d'administration territoriale lii tax yéenekaay bi di laajte lan la président Macky di waajal jamono ji bés bi le jour dañuy am jafe-jafe dëgg kay mu di direction des élections ndax nombre de candidats gu takku gi nga xamante ni am na ci élection présidentielle yi ñu jëm ah ñoom dinañ impression ba sonn waxuma la dara waaye nombre CFA fi mu ni dépensé gum nañ ko ci wàccaayu élection yi filtrage bi nag moom xam naa ne du yomb vox populi ne yi bari de soo moytuwul laa la wax sévérité dina ci ànd ndax yàkkal ma boo moytuwul nag du am ci parrainage bi te autorité yi nag boo moytuwul ñu jël ci seeni responsabilité yéenekaay bi taxaw seetlu ci candidat yu bari yi nga xam ne jëlee nañ fiche de parrainage bi toll nañ ci 215 yoo xam ne jëlee nañ fiche bi te lim gi sabotage la bu kenn mënta expliquer nag ci cëru présidence de la république Walf Quotidien élection présidentielle yi ñuy dem da booy xool candidat par procuration yi nag bari nañ ci lool ndax booy xool Amadou Ba président Macky la demal Aliou Mamadou Dia Serigne Moustapha Sy la demal Guy Marius Sagna Ousmane Sonko la demal lii tax yéenekaay bi taxaw ci seen libération yéenekaay moom dellusiwaat ci kaw Ousmane Sonko cour suprême bi nga xam ne ñoo koy bi ndax ni ki démb la xamal ministre yii ne leen damay tas gouvernement bi ndaw ñu ngi génn ci Sénégal rek di dem ca bitim réew jaarale ko ca barsak barsak gi yéenekaay bi dañu xamal ni ci fukki fan rek lu tollu 1295 jeunes nañu ci diwaanu Espagne juróom-ñeent gaal mujjee teeri ca Espagne te ci lim gi nag ñu ngi ci compté fanweeri jigéen ak ñaar ñaar fukki xale yu tuuti ak ñaar bokk ci gaal yi teeri ci diwaanu Espagne yéenekaay bi na taxawal rek Maroc 240 sénégalais ñoo ca nekkoon waaye ba nuy yegg si ñeent ci ñoom dañoo am ay gaañu gaañu yu métti ba ñu mujjee leen yóbbu nag hôpital lii di firndeen na ndaw ñi fi mu toll nii ba léegi ñu ngi dem ci gaal gi barsaak barsaak gii xanaa état bu Sénégal gii da ci amul solution ah lu yéeme la de fi mu toll nii. waaye nag yàlla baax na ñu yéen ak jàmm mbokk yi ba suba ak jàmm allah.